wala xawla wala quwwata illa billahi alcaliyi alcazim ya himmat alcheikh ixduri lana bi hada almaxdari waltactihi binawratin tati lana bigafari alxadiisu alcishruuna ñaar fukkeelu xadiis nee na an abi mas'udin jëlee nañ ci sayyidina abu mas'ud turam mooy uqbata bni amr uqba doomi amr al ansaari al badri bokk ci lansaar ñu koy askane badar lansaar ñooy ñuy gàttandu yonantu sallallahu alayhi wa sallam waa madina aw sak xasraj lañ woon nekkoon ci jongante gu métti te ay mbokk lañ kat waaye ñaari giir yi di wujjee juróon na leen xeex yu yàgga yàgg bi yàlla indee yonantu sallallahu alayhi wa jubale delloowaat mbokk gi fu gën a dëgër fam newoon ci cosaan tuddee leen al ansaar ñi nga xam ne ñooy dimbale diine yàlla ji ñooy dimbale yonantu yàlla bi ni ko yonantu yàlla isa laajee woon xawaari yuune yi man ansaariya ila qaala alxawaariyuuna naxnu ansaarullah badr ab teen la fala xaswatu badrul kubra amee woon fala yàlla njëkk a feeñalee dooley lislaam bañ wek ko ndax lu rombut ñetti téeméer fukk ak ñett buñ notee lim bu jege junne mm. te ñetti téeméeri fukk ak ñett mbaa mm. ñeent mba juróom mm. amuñ ngànnaay amuñu waruwaay waaye am nañu dogu am nañu njàmbaar am nañu yaqiin ci ne yàlla du leen seetaan mm-hmm. yàlla may leen ndam wa laqad nasarakum allahu bi badrin mu yàlla dimbale woon na leen ci badar wa antum te boobu yéen azillatun tuuti ngeen ñàkk solo ci lim amu leen dara hmm? kon nag fattaqullaha laallakum tashkurun bàyyi leen xel yàlla ndax ngeen mën a sant moo tax ñu ne bokk na ci dimbale nit ba mën a sant yàlla ragal yàlla fattaqullaha laallakum tashkurun ndax ku ragal yàlla da bàyyi xel lim la defal yëpp bari na looy xeeb te fekk amut euh, limite ci valeur boo ko seetantale rek sant benn waaye dafa ñëw ci nitu yàlla ki di ko jàmbatal ñàkk ñàkk gu métti góor ga ne ko loo xam ci suma ma daggoon sa loxo bi te jox la fukki junne dollar mu ne ko moom koy xalaatuma ko ne ko naka noonu su ma jëloon sa bët yi tegal la ci fukki junne dollar mm. mu ko mukk mm. mu ko sa tànk yi ma mm. tegal la ci fukki junne dollar mu ko mukk ma dagg sa làmmiñ wi la ci ñaar fukki junne dollar mu ne ko mukk yaa ngi juróom fukki junne dollar di tawat sa borom foofay Badr radiyallahu anhu anna yàlla gërëm mm-hmm. abu mas'ud mii di uqubatu bnu amr mm-hmm. qaala mu ne qaala wax na rasulullahi yonentu sallallahu alayhi wa mm. ne inna mimma adraka nnaasu mm. inna gi dafay dafay feddale mm-hmm. bokk na ci li nga xam ne nit ñi jot nañ ko mm. min kalaami nubuwati luula wala min kalaami nubuati luula ñaar yëpp baax na ci waxi yonantu gu njëkk ga baat yi may bëgg a wax kon lii baat yi mooy max jumla maxkiya alayha la ida lam tastaxi soo xamut kersa soo xere sut mm. fas naama chita mm-hmm. dafa lu la neex mm-hmm. Mm-hmm. waaw yonantu gu njëkk gi mm. bari na kàddu yuñ wax mm. yuy jëriñ nit seen kàddu yëpp a jëriñ nit sax xëy na yëpp nit ñi mokkaluñ ko wala yuñ ci mokkal yépp desut fi ba léegi bokk na ci yi fi des ba léegi nag baat yu tuuti yi taam njëriñ mm-hmm. hmm? mm-hmm. ida lam tastaxi mm-hmm. fasnaa ma chita ñaari maanaa la am nag soo amut kersa defal lu la neex kersa yaaram dañ koy firee infiaalun yaxduthu lil insaani inda ficlin laa yujam inda fiili ma laa yujammiluhu wala yuzayyinuhu fa yankasiru wa yaxsulu alxasa wa yaxsulu alxaya am na ak jañu am na ak jañu guy ne ci biir doomu aadama su bëggee def loo xam ne du rafetal deram su bëggee def loo xam ne mbañ rus nanguwut ko loolu di jeñu ci biiram ba mu ba tax mu rus ba du ko def loolay kersa yëg-yëg boobu nit di am ci bu bëggee def loo xam ne sant santuwut ba tax mu daldi di am ba tax mu taxaw mënta continuer mm. ñu ne loolooy kersa waaw ah, ida lam tastaxi fasna ma chita ma ne am na ñaari maana mm-hmm. maanaa mu njëkk mi mooy ida lam takun mm-hmm. daa xayaain mm-hmm. sanata ma tachaaw loolu maanaam xabaar la kon mooy ku xamul kersa lu ko neex def waaw ku xamul kersa naa def lu ne ñaareelu maanaa mi mooy hmm. su la leeree ne li ngay def ku la ca fekk doo rus hmm. defal hmm. ida kaana alfilu laa yustaxyaa minhu fasnau su la leeree ne mbir mi bi nga koy def yow la amuloo benn gêne xam nga ne lu lay taaral la te ku la ca fekk du la ca ñaawale du la ca xeebee doo rus mu gis la defal it loolu kon fii maanaami maanaam ndigal la mm-hmm. fële maanaami maanaam mm-hmm. xibaar la dafay mm-hmm. wane ne ku amul kersa lu ko neex def ñaareelu yi mu lay wan ne bu fekkee li ngay def lu baax la kay kersa amut ca def ko fekkee li ngay def lu baax la ku la ca fekk doo rus def ko maanaam loo bëgg a def rek xoolal ndax lii buñ ma ca fekkoon daa rusam déet loo bëgg a def rek xoolal ndax lii sama xol bi nangu na ko déet mm-hmm. la yonentu waxoon waaje istafti qalbaka mm-hmm. laajal sa xol mm-hmm. lu baax xol ak xel mu rafet daf koy nangu lu bon xel mu rafet du ko nangu kon li ñuy jàngee ci xadis ji mooy mm. yi njëriñ yi nga xam ne Mm. yonent yu njëkk yi ñoo ko fi bàyyi mm. am na yu ci des ba léegi yuñ mën a jëriñoo mm. yàlla tàppeel nañu ko ci téereem bi mm-hmm. tàppeel ñu ko ci làmmiñu yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. xadis dana dikk ne yàlla wàcce na téeméeri téere ak ñeent waaye ya nekk ca téere yooyu yëpp dëxëñ na ko ci ñeenti téere muy tawraat ak linjiil ak zabuur ak furqaan mm. yooyu yëpp nag yàlla dëxañ na ko ci alquran mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. yooyu yëpp yàlla dëxañ na ko ci alquran ñu ne sax yëpp yàlla dëxañ na ko ci fatiha ñu ne sax yëpp yàlla dëxañ na ko ci bismillahi rahmaani rahim ñu ne sax yëpp yàlla dëxañ na ko ci baawu bismillahi naka waaye danga nga jàng ci alquran sax hmm. yàlla ne la bal tuuthiruuna alxayaata addunya hmm, hmm. walaaxiratu xayrun wa abqe inna haada la fi suxufi luule dégg nga inna haada la fi suxufi luule mi ci téere yu njëkk ya suxufi ibrahima laa wa muuse bari lu ñuy jàng ci alquran nee na am na ca loo xam ne mu hmm. ci téere yu njëkk ya hmm. Hmm. bokk na ci nag ci nga xam ne yàlla waxoon na ko yonent ya walla yonent yi yàlla mayoon na leen ndigal ci ñuy wax ko jaam ñi ndax daf leen di njëriñ mooy wax ji ida lam fas fasna ma kon ñu jànge ci xadis ji ne jeexit yi jógee ci yonent ya am na yu fi des ba léegi yi ñuy jëlee nag ci xeeti njëkk yi moo xam ñu koy askanee seeni yonant wala ñu koy askane téere yàlla yu njëkk ya ñetti xaaj la loo xam ne suñu sharia seede na ne wér na loolu dañ koy nangu alquran wax na ko nga dem fekk ko ci linjiil mm-hmm. bi ñu yore léegi mm-hmm. fekk ko ci tawraat bi ñu yore léegi mm-hmm. kooku dañ koy nangu pas parce que fekk nañ ko ci tawraat ak linjiil waaye alquran confirmé na ko ndax tawraat ak linjiil loxo nit dugg na ca kon lu ci alquran confirmé rek la ñuy nangu lu ci yonantu confirmé rek la nangu ñaareelu xaaj bi luñ gis ca téere yooyu mbaa ñu jëlee ko ci xeet yu njëkkee ñu koy askane seeni yonantu mbaa yàlla mm. te alquran wala yonantu mm. seede ne ak neen la seede ne ay sos la mm. loola dañ koy delloo mm-hmm. lu wax ja neex neex mm-hmm. lu mu bari bari mm-hmm. dañ koy delloo dañ koy rejeté léeg-léeg nag ñu dégg ci israiliyaat yi hmm. walla lenn yi ñuy jëlee ci yonent yu njëkk ya hmm. ñu ne hmm. wala xeetu njëkk ya indil ñu ko ne ci seeni téere alquran yonentu sallallahu alayhi wa sallam saxalut ko delloowut ko loolu nag des cay taxaw loolu nag des cay taxaw bu fekkee ne wax joo xam ne na dafa dellu ci waareeg yu mel noonu mën nañ caa jëriñu hmm. waaye duñ ca sukkandiku hmm. rek hmm. duñ duñ sukkandiku ca wax jooja rek mën nañ ko wéttalikoo nag moo tax yonent saa daan wax ne na ngeen waxtaanee jëlee ci banu israila wala xaraj waaye loolu nag feek muy mbir moo xam ne dëppoo naag sharia te it muy mbir moo xam ne sharia ñëwut weddi ko mbir moo xam ne dëppoo naag sharia di mbir moo xam ne sharia ñëwut mhm. euh, weddi ko mhm. su fekkee sharia weddiwut ko saxalut ko mhm. nañ ko nettali waaye duñ ca sukkandiku ca moom kese bokk na ci ñuy nettali jëlee ci ñu njëkk ñi xisaay yonentu yàlla daawuda yàlla nettali na ci alquran ñaar ña nga xam ne dikk nañu ci daawuda alayhi salaam ngir mu àtte leen hmm. ni ko sama borom waxee ca eh, suratu Saad am na ñu hmm. koy tuddee sa suratu Daawud hmm. inna haada axi lahu tiscun wa tiscuuna nacja wa liya nacjatun waxidatun fa qaala akfilniha wa azzani fi lxitaab Daawud alayhi salaam dafa toog rek ñaari waay aksi hmm. ni ñëwee nag hmm. xam naa xaw na koo jaaxal hmm. ndax dañoo tëb miiru mihraab aksi tasawwarul mihraab ah bi nga bi ñu ñëwee liñ ko njëkk a wax Euh, bul bul bul bul tiit hmm. laa taxaf ñun ñaar lañ daal ñoo xam ne dañoo jotee hmm. xasmaani baxee baaduna hmm. ala baad kii sama mbokk ci ñoom mooy wax am na juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeenti gàtt man ma benn gàtt rek naajatun mooy gàtt bu jigéen bu doon ci wolof ci saalum ñu ne tënk man ma am benn hmm. mu daal jël sama bos hmm. boole ci yosam mottale hmm. ko téeméer not ma nag ci xitaab ndax fasaxatoom ak bayaanam daawda it daal di àtte ne laqad bi suaali naajatika ila niaaji wa inna kathiran min alxulataai la yabgi baaduhum ala baad illa alladina aamanu wa amilu salihaati wa qalilum ma hum ah tooñ na la de te ñu bari nag ci ñiy liggéeyandoo ñenn dañuy tooñ ñenn lu dul ñi gëm tey jëf mbaax te ñu tuuti lañu añoomit ah, ñu jóg dem wa danna daawudu annama fatannaahu mm-hmm. daawuda daal di jort te njortuk mm. yonantu la mm. wóolu ne xaa fitnaal nañ ko mm. fastaxwara rabbahu mu daal di jéggalu boromam mm-hmm. wa xarra raakian wa anaab mm-hmm. rot ci suuf lu kool yàlla ci moom yàlla ne fa xafarnaa lahu dalik ñu baal ko loolu xam nga yahud hmm. ci seeni mbon hmm. dañuy askane daawuda ne ñaari xulookat yi kat dañ ko cax hmm. ndax ñu ne daawuda dafa am benn général am bu amoon jabar ju rafet mu nopp ko wal iyaazu di ko yebal ci xare bu ñëwee mu yebal ko ci xare bu ñëwee mu yebal ko bañ ray ko ca ndaw sa ténjee ba noppi mu takk ko kon naaw kon daaw daawda jël na benn jabar jabari waajoo ci taf ci juróom-ñeent fukki jabaram yeeg ñeent yu bari ci waxin mm-hmm. ñu ne ñooñu ñëw di ko cax mm-hmm. mu dégg ko nag tax daal di tuub mm-hmm. waaye loola mm. ñuy askane daawda ab jullit bu baax sax du ko def sàkkaab yonantu boo xam ne mm. dañ ko musal ci bàkkaar li ñuy wax ci daawuda hmm. lim def fii ba yàlla ne mu xam ne fitnaal nañ ko mu tuub hmm. te ñu baal ko hmm. leer na nañ ndax ñaara nit ñaari nit a ñëw di xuloo wala ñaara nit a ñëw di wut atte kenn ki wax balaa ngaa atte dangaa war a déglu keneen te soo xoolee wax ji ni demee dangay ngay yëg ne daawuda kenn ki rek la déglu léeg-léeg nag nga déglu nit mhm. moo xam sa xarit la mhm. mbaa sa mbokk la mhm. walla téléphone wala mu ñëw di la wax situation waaw li ko jëkkëram def waaw li ko kim doon liggéeyal def bu waxee waxe ba pare te yow xam nga waa ji wala gëm nga ko walla wóolu nga ko walla sa yaram daw na ci li mu wax tax nga ne ah kooku moo bon lu tax mu def loolu te déglu woo këlekat yàlla ngi jàngal fii nag ne bul atte mukk feeg déglu ñaari boor mm-hmm. ak lu wax ja jaar yoon jaar yoon mm-hmm. déglul kiñ tuumaal mm-hmm. bañ waxee waa ji bi mu waxee rek daaru daf ne kaa ah, tooñ na la de te dégluwul keneen ki ci la bi ñooñu demee na ci la xam ne a ah, juum na émotion jàpp na ko tax yàlla wax ko ca kanam ne ko yaa daawud inna jacalnaaka xalifatan fi l ardi faxkum bayna annaasi bilxaqi wala tattabici l hawa waaw mm-hmm. ah, wala tattabi al hawa te hawa émotion hawa la mm-hmm. Ah, mm-hmm. kuy attee du topp émotion dafa war a équilibré dafa war a dal xelam dafa war a xelli dafa war a déglu ñëpp moo tax yoon salaay salaam nee bu kenn ci yéen di atte te fekk ma nga qaadi balaa moo toog ci jotaayu atte bu fekk mu mer bu mhm. fekkee ne mi ngi mer na bàyyi ba mer ma giif mhm. boroom xam-xam yi xiyaas ca ne mhm. ku xiif it mu màtte ndax ku xiif ñëw na muy xalaat dafay yàkkamti boo moytu yëf yi jeex ba mu dem lekki hmm? kon benn sikk rek la yàlla di toppee daawuda te émotion la duul ne loo xam ne nii daf ko bëggoon waaye yàlla ko ko fàtteloo ngir mu jàngalee ñu ca ñun dégg nga moo tax mu yedd ko mm-hmm. daaw de it daal tuub mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. am na ñu ne sax bokk na mm. ci li tax yàlla di ko euh, yedd mooy la mu tëju ca mihraab ba di jaamu yàlla mm. te jaamu yàlla gi ci moom rekk la yem te mm. war a àtte nit ñi ba ñooñu di jéggi di tëb mihraab ba di ko fa fekk ñu cey jàngee ne njëriñu ñëpp lañu war a jiital ci njëriñu kenn ndax bu fekkee ne yow borom xam-xam nga mm. te mën ngaa génn jàngal nit ñi mm. sa naafile guddi mm-hmm. génn jàngal nit ñi la mm-hmm. bu fekkee ne nit ñaa ngi soxla nga jàngal leen mm-hmm. ba tëjoo di fanaanee naafile mm. te nit ñaa ngi soxla jàng jàngaloo leen yeddaange boo moytul nga cay am kii amee alal kooku naafilam yi ci gën a am solo mooy jox ko ñi ñàkk du tëju guddi di naafila mm-hmm. baa di def xeeti jaamu yàlla yoo xam ne ci moom rek la mm-hmm. waaw ki nga xam ne it moom lañ jox dëkk bi ngir mu war ko gouverner mm. kooku toppatoo soxlaay nit ñi moo gën a nekk farata ci moom mm. fanaanee la mm-hmm. ñu ne kon Seydina Daawuda mm. moom mooy attekat bi waaye ma nga tëju ca mihraab di jaamu boromam yàlla wan ko ne ko njëriñul nit ñi nga bàyyi ci bitikat moo gën a do farata nekk gi nga nekk fii mm-hmm. euh, di atte mm-hmm. ndax waxin wi wane ne ne mm-hmm. ñii bañ ñëwee amuñ fuñ jaar moo tax ñu tëpp hmm? id tasaw id naka la ko waxeeti ca saar wa id tasawwaru la wax hmm? tasawur mooy koo xam ne dafa dafa tëb miir bi dafa ñalgu miir ba hmm. moo tax fa fasia minhum fasia minhum nag dañ ca déggee ne du ñu woon ñaar kon ñaar ñi sax am na mm-hmm. rek ñoo ci jote woon mm-hmm. Mm-hmm. qaalu laa taxaf xasmaani baxi mu ngoog kon lañ jëlee ci banu israila du dëgg foofu alquran ñëw na dàq ko moo tax kenn waru ko nettalee lu dul nga nettali ko ci anamuk hmm. euh, wane ne du ne du dëgg hmm, hmm, waaye nag danga dégg suñ gàmmukat yu bari ba sax ñu yor ne dañuy firi alquran di ko nettalee noonu dégg nga benn xamuñ ne du dëgg wala buñ ko xamee duñ ko leeralal ñu koy dégg bu fi buñ demee nag ba gàmmukat yi ku ci nekk ab kaset rek ngay déglu waa loo liir cib téere gàmmoo ko so doo wérlu dafay nekk musiba rawatina nag bu fekkee li ngay wax alquran weddi na ko mhm. te moom leeral na carrément mhm. yëf yi ni mu demee mhm. kenn na wax mu àtte te waroon naa déglu keneen ki yonentu daan na wax ne dees may yàlla dana daf may fàtteloo waaw lu tax yàlla di ko fàtteloo pour yoonam looloo tax mu julli ñaari ràkka tisbaar sëlmal jokk rek dem toog fële te saxaaba yu mag yi ñoom mm. dañoo dañoo dañoo wekk yonent bi ba mm. mm. ñéemu ñoo addu mm-hmm. am na ca nag saxaabi bu fa nekk bu ñuy wax Zul Yadayni mu ne ko yonentu dañoo wàññi julli wala dangaa juum mu ne ko benn ci ñaar yooyu amut mu ne ko mm-hmm. ah mm-hmm. benn julli dañ ko wàññi wala dangaa fàtte ndax ñaari ràkk la julli yonent daal di laajte na li dul yadayni wax dëgg la ñu ne ko ah kay mm-hmm. mu daal di indi yeneen ñaari rakk mm-hmm. sujjóot ba'da salaam mm-hmm. yàlla ko fàtteloo foofu ngir yoonal ne képp ku fàtteeti mm. ba sëlmal te jotut mm. da ngay indi la des ca mm. euh, julli ga dégg nga sëlmal ba'da sujjóot mu ngi jàngale foofit ne limaan wax ak tont gi muy wax ak maamoom yi te mm-hmm. bokk ci julli gi mm-hmm. dafay defee julli gi waaye du ko yàq mm-hmm. kon ab yonantu dañ koy fàtteloo ngir tashriya ndax am na loo xam ne bu ko bu bu ko tatbiqul duñ ko mën a tatbiq ñun ndax yonantu waxoon nañu ne sallu kama raaytumuni usalli waxoon nañu ne xudu anni manasikakum donc pour ñu mën koo defee ni mu ko daa defee fokk ñu gis fokk ñu xam ni mu ko daal defee mm-hmm. fokk ñu xamee ci moom bu ca dara yàqoo nuñ koy defee mm-hmm. moo tax yàlla di causer yenn situation yi mm-hmm. uh-huh. ida lam tastaxi mm. fasna ma chita kàddu gu gàtt la waaye gu bëri njëriñ la ndax dafay tàgg kersa ndax dafay tàgg kersa moo xam ci firiwun wu njëkk wi mm-hmm. ndax ku kersa lu ko neex def mm. tàgg nañ kersa rek ndax mm-hmm. ŋàññi nañ ki ko amut mm-hmm. wala li ngay def su fekkee dëppoo naa bañ ruus defal mm. tàgg nañ kersa rek ndax kersa yonentu wax na ne mm. shu'ba la ci liimaan wax na ne liimaan am na juróom ñaar fukki xur ak lu lu ca topp mm-hmm. ak nàngam mm-hmm. bida bu ko arab waxee mooy nàngam mm-hmm. ñu ne mooy ñett ba juróom-ñeent ah, alif laam miim gulibati ruumu fi adna al ard wa hum min bacdi galabihim sa yaglibuun fi bidci sinin booba faris ak ruum dañoo xeex dégg nga waa faris not jaamukatu xërëm yi nag di yëjji jullit yi mm-hmm. ne leen gis ngeen mm-hmm. yéen ñi gëm yàlla mm-hmm. suñ mbokk yi nga xam ne xërëm lañuy jàmm not nañ leen yonentu sallallahu alayhi wa yàlla wax yu ko ne ko wax leen ne leen fii at yu néew ñu ruum danañ not faris te booba kenn mënta xalaat ne ruum mën naa not faris ndax doole ju rëy ji amoon waaye bal ci at yu néew Euh, ruum daal di not faris mhm. mu bokk ci yenn mujizaati yonantu mujizaati alquran mhm. fii bid'i sinin mhm. bid'u mooy ñett ba juróom-ñeent ci lu matut lim boobu ci la xeex ruum la xeex ak faris euh, not leen lillahi lamru min qablu wa min baad kon xayaa googu shucba la bu yonantu wax na ne Euh, limaan am na bidu ak juróom-ñaar fukk ci division ci xur mu ni xayaa benn la ci xayaa nag ñaar la xayaa gu ci yàlla azza wa ak xayaa gu ci mbindeef yi xayaa muy kersa gu dellu ci yàlla subhaanahu wa taala mooy ñu xeres yàlla ci bum ñu gis fum ñu bëggut gis bum ñu nemmeeku fu ñu war a gis mm-hmm. ñu nemmeeku moo mooy nem mooy mooy ngay toog ci mm-hmm. xool ah Modou Fallo de gisuma ko fi mm-hmm. loolu yàlla bum ñu bum ñu ñàkk gis fum ñu bëgg a gis bum ñu ñu bëggul a gis mooy loolu mooy loolu mooy xayaa côté yàlla moo tax yonentu sallallahu alayhi wa sallam waxee saxaaba yi am leen kersa ci yàlla hmm. dëgg eh, dëgg ne ko am nañ kersa kay mu hmm. firil leen ne leen du loolu mooy kersa hmm. kersa mooy nangam ak nangam ak nangam lam wax yépp mooy mu ngi dellu ci fu yàlla bëgg laa fu mu la bëgg a gis na la fa gis fu mu la bëggut a gis mu la fa gis dañuy wax ne nit ki buy def lu jaaduwut sama boroom dana ko communiquer moo xam dégg na ko mu déggut ko mm-hmm. ne ko lu tax nga gën maa def mooy ki gën a ñàkk fayda ci ñi lay xool mm. ndax am na ñoo xam ne bu la leeroon ne ñu ngi lay gis mm. li ngay def doo ko def mm-hmm. bu la leeroon ne fii caméra de surveillance sax ngi fi mm. nit ñi mën nañoo jot ci li ngay def doo ko def mm-hmm. ñoo ñëpp newuñ fi nag man rek ma ne fii nga def ma muy may nga ñàkkal ma fayda ba dégg nga faalewuloo mm-hmm. bay def li ngay def mm-hmm. lu tax nga def ma mooy ki gën ñàkk fayda ci mm-hmm. ñu lay gis ñu ne xayaa ci wàllu mbindéef yi mooy nga fegu ci lépp loo xam ne dafa wuuteeg mbañuus hmm? Mm-hmm. lépp loo xam ne dafa wuteeg mbañ mm-hmm. nga def ko mm-hmm. xam nga tey jii mën nañoo toog ci barab nga toog ak ay ay ay ay nit ñoo xam ne xamoo leen par exemple wala miinante ak ñoom nga tàllal say tànk loolu mbañ ruus nanguwut ko loolu mbañ ruus nanguwut moo tax lépp loo xam ne wala daan nañ wax ne sax ab ilimaan bokk na ci yu ñuy critères yi ñu koy tànnee mu am mbanjulus ñu ne bokk na ci mbanjulus ñàkk lekk ci mbedd ñàkk lekk ci mbedd xayaa ci wat wàllu yàlla fu la bëgg a gis ne la fa gis fu la bëggut a gis mu la fa gis xayaa ci wàllu mbindéef doo def ci seen kanam lépp lu wuuteeg mbañuus wala doo doo ko def sax mm-hmm. Mm. Mm-hmm. ñu ne xayaa yi ñaari xeet la xayaa goo xam ne juddu xaale la mm-hmm. ak xayaa goo xam ne mën nga koo fàggu mm-hmm. mm-hmm. am na ci nit ñi ñoo xam ne noonu lañ judd yàlla daf leen def ñu naturellement dañoo am kers hmm? naturellement dañoo am kers ñi ñi liggéey ci wàllu psychologie dañuy wax ne dafa am nit ñoo xam dañoo biire am nit ñoo xam dañoo bitee nit ñoo xam ne dañoo biire mooy toujours ñu ngi ci seen coin Mmh. toujours wax lu bari mmh. dañoo am kersa mmh. naturellement du wax lu dul ne wax mënta ñàkk du jëf lu dul ne jëf mënta ñàkk ndax dafa am kersa loolu dafay am am na xayaa goo xam ne nag dañ koy fàggu am na xayaa goo xam ne dañ koy fàggu am na nit ñoo xam ne dañoo rëy làmmiñ waaye mën nañoo tàggat seen bopp mm. ba dootuñ waxati lu ñu wax mm-hmm. Mm-hmm. dañoo bëri dañoo bëri yëngatu mm. waaye mën nañoo tàggat seen bopp mm-hmm. ba jëf lu ñu jëf mm. su nit ki nag su ko yàlla joxee xayaa jum judduwaale alhamdulilah su ko ko yàlla joxutit may na ko mu mën koo fàggu ndax jikko joo gis nag su ca nit tàggatee boppam rek am ko xayaa gi ñuy wax ne it dañ koy judduwaale hmm. ñu ngi koy sant hmm. ci su fekkee ne terewul borom hmm. mu def lu mu warta def mbaa taxut borom def lu mu warta def mën naa rust ba tax mu bàyyi lu mu warta ba mbaa mu am kersa ba tax mu def lu mu warta def mën nga am kersa ba def loo bëggut a def waaye bu mu fekk muy loo warta def loo warta def mooy li yàlla li yàlla bëggul nga def ko mm-hmm. ak lim bañ ruus bëggul nga def ko mm-hmm. nit tamit mën naa fàggu kersa mm-hmm. ba kersa yi yóbbee ko loolu def lu mu warta def mbaa ba mu war a def kersa giñ tagg mooy kersa goo xam ne du la la def loolu defut kersa gi lay baloo lu war baa mu lay def loolu defut kersa guñ ŋàññi la kooku kersa kersa guñ ŋàññi la doomu aadama daal fekk xam na ne li muy def mbaax la ku ko mm. jofee ko du rus mm. na ko def mm. idaa lam tastaxi fasna maa shi'ta waaye nit bu fekkee ne xamul kersa mën naa mel lu ko neex def mm-hmm. Mm-hmm. nekkatut nit mm-hmm. bahima la yàlla nañu yàlla musal ci bahim yëpp hada sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al-azim alhamdulillah gudd na de